tey nag jàmm dafa mel ni leaderu Pastef bii di Ousmane Sonko dafa fàtte dafa nekk sous contrôle judiciaire moom mi lee dañ ko invité fële ca Lomé Togo mu war a assister ci états généraux de l'éco bi nga xam ne dañ ko fa invité moom ak ay personnalité waaye boo sàgganee tuuti njiitalu Pastef bi dina ko wuute ndax ci ak fàttali dañ ko placé su contrôle judiciaire ci coow loolu fi doxoon ci digganteem ak Adji Sarr ay avocaam sax formulé nañ benn demande d'autorisation maanaam pour mu mën a génn ngir teewe boobu altine bii ñu weesu waaye Ousmane Sonko bu doon takkoon na ay bagaasam mën na ko tekki ndax procureur bii di Serigne Bassirou Gueye gàntal na ko de dafa bañ lànk carré la def ni du ko nangul boobule autorisation kon nag Seydina Ousmane mu sell mi da ngay mujje muñ rek toog xaar juge d'instruction bi nga xam ni moo wuutu Samba sàll mu daadee def liggéeyam rek ci wàll wi jàmm ak jàmm ak Sam TV gaynde d'actualité